recevoir léegi essence ba nga taal corté boobu nga xam duutu Coulibaly moo tax ngeen def ko mhm. ndax ay tàppet ngeen ah. waxoon dama leen di baare moo tax ngeen def cortège def live dégg nga du mm. léegi lu mu jëriñ mm. mais mënu woon xaar ba mardi mu recevoir leen mhm. est-ce que bruit bi yëpp dina am xam moo tax gis nga man dama bëgg ah mhm. nit ñi di analyser froidement les choses mm-hmm. su dee yow dem nga kolobaan te yow succès bu ñu wax ni yow moom nga fa am mm-hmm. mooy régler nga problème yi mm-hmm. loolu leen di recevoir aate mardi may wax chaque jour ngay persister dans l'erreur persister dans l'erreur xam nga mooy lan mooy lan boo demee ba jàpp ni yow kolobaan li nga fa defi woon du won leneen lu dul doxantu dimanche di nga wax ju baax mm-hmm. pour def bruit def buzz mm-hmm. te buzzu dimanche bi moom Doudou Coulibaly ko moom keneen moomu ko loolu dëgg la moom yaa ngi dégg mm-hmm. nga am problème ne qui est ce gars qui a pris tout mon buzz Doudou Coulibaly Doudou Coulibaly yaa ngi dégg blocage blocage ah baare baare yaa ngi dégg léegi nga ñëw bëgg rectifier ci veux rectification nga defaat erreur. ban erreur la def doyen. non erreur bi mu def moy. Mhm. Boy invité population yi dama ne man dama mhm. bëgg. aussi le sens de la république. Mhm. le sens de la république moy munoo pour un problème comme ça. yaa ngi L'acteur principal c'est la mairie de face face à Colobane. mais nga bëggu régler problème ngay def réunion bo xamné yow invité au maire bokku ñu ci parce que yow ya ngi fayontu di naan ay taxaw la xolal gis nga buñu amna fu état di toll hmm c'est contingence politique là hmm warul am ya ngi dégg hmm may wax ay dom booj gëna andi andi hmm ay dëmbooj moom njombe bi mu indi mhm. mooy dalal ambulant yi mhm. di leen gëmloo ni dinañ leen defal ay financement ay financement donc ambulant foo koy fekk xam nga luy ambulant mm. ambulant mooy su affaire yi doxee tey nga dem jaayee tilin suba nga jaayee sàndaga suba nga dem caaroy mhm. suba ñu dégg la tëngéej loolu lay ambulant. mooy kuy wër di jaay daal. kuy wër di jaay koo xam ne amul adresse. fixe yaa ngi dégg mhm. fixe. Mhm. yow si philosophie jubal jub ak jubanti. Mhm. yow boo jëlee xaalisu Sénégal jox ko ambulant. yow suba ambulant bi foo koy fekk. pour mu fay la. mooy li may wax encore une fois nañu bàyyi populisme te jéem les choses, mhm. formaliser les choses passe mhm. Mhm. par des politiques beaucoup plus réfléchies. si vous avez un ndax ambulant. du sax statut qui est nit c'est passager dama siy jaar. comprendre nga la Moi, comme suñ ñun rek reporter bu jël. man def ay temps un plusieurs fois. mais tey boo ma nee kaay xaar. quinze mille la rek débutant laa woon. Mhm. mais nit da nekk reporter am aspiration nekk suba grand journaliste. bay mhm. nekk responsable bu mag. Mhm. moo tax man c'est nga man affaire yu mel noonu du ay problème si man. donc ambulant c'est un statut boo xam ne provisoire. bu nit ki am. ambulant bu ne mu ngi reewi am kantinam ak boutique am dégg nga te gis nga gis nga gis nga commerce mm-hmm. formel bi moo ko yor mm-hmm. xam nga lu tax mm-hmm. boo demee ci commerce patente yi ak droit yi nga xam ne ñoom la commerçant yi di fay tablier yi duñ ko fay ambulant du ko fay yow li nga war a inciter mooy la création de marché mm. centre commercial patente bi accessible waaw mhm. mairie bi su ko fayekoo ci at bi day tax mu mun jël santé nit ñi jël éducation bi jël éclairage public bi jël li mu waroon def yëpp ay koppar yu am solo mais boo demee mhm. di inciter à ce que cantines yi nañ tëj boutiques yi nañ tëj léegi nañu nañu privilégier les ambulants mhm. mooy yow yaa ngi jël li nga xam ne mooy principal ressource collectivité locale di leen mm. ko xañ ok ndax kële juuti lay fay yenn saay sax du ko fay du ko fay yaa ngi du am lu mu jaay sax bay fay exactement mooy comme transport rek mm-hmm. transport boo xam ni dëkk boo xam ni clando yi ñoo ëpp mm-hmm. clan euh, nu mu tudd formel bi mais loolu c'est extraordinaire yow taximan fay xam nga man limay wax yeb duma ma nit du ma ko hmm dañ yor na carte transport hmm carte transport assurance hmm <laughs> non buñ la ko waxe da ngay ne c'est pas vrai lan mo ci différence ak yenen dafa cher hmm mais bus yi ngeen di gis ni 70 places yi hmm mais dama nga dama nga manam manam bo xolé bu baax day jege cent mille weer bi alors que une voiture particulière mun na dem sax bay fay cinq mille francs kii day jege cent mille par mois par mois dégg ju mm-hmm. yooyu ngay gis noonu mooy transport formel bi mm-hmm. ñoo yore station d'essence yi mm-hmm. ñoo yore gare routière yi gare routière yi xam nga ñaata lay génne gare routière yi regroupement chauffeur ak collectivité locale bi ak liy gérer gare routière bi mm. lépp si ñoom lay jóge mm. yow léegi nga dem jël benn waay du dugg si garage bi du fay mooy un ah? du fay droit du jënd assurance bu cher bu baax bi nga xam mm. ni